au pouvoir rek dañ jot yi ñoom na Karim ñëw ñu toogaat au pouvoir ñoom lan leen sànnoon ñu di ko yéyantu ñu kon ne di ko mais ñi bëgg-bëgg ñëpp bëgguñ PDS bëgg dernier point bi hmm. mu ñeel li nga xamante ni moo di dialogue bi président na nee na dialogue bi woote na ku ñëw ku gën sa yaay kàddu yu naqar yu yow fi réew mi toll ngay wax mbirum gedd ak sa yaay aya moo tax ma ne la gars yi bëri déception lañu am ci interview bi déjà yow war ngeen ni bëggoo dialogue xam nga Penda jaloog day am cadre dialogue du rek wax moo tax la presse des fois vraiment ngeen def seen liggéey quoi ni ngeen ko war a def des fois foog ma leen def sànni xeer ñëpp ngi naan le président woote na woo dialogue mais président Penda woote na woo dialogue ci cadre mais yan acte la posé pour wane dafa bëgg dialogue acte yooyu tamit doon nañu a leer tey ji su fekkoon ne opposition demee wuy ji buñu demee wuy ji dina xam tey ji la la nga xamante da ngay posé acte xaar xaar acte bi ki jiitu mooy déjà woon na la déedéet ku ñu woo kay loolu ah, la rek ah mais acte non non boo ko bëggee da <laughs> nañu fexe tey ji ba résolver problème yi nga xam ci dëkk bi président posé déjà benn acte moom bëggee posé dialogue day def acte bu jëm foofu créer cadre on parle de détenu politique moo nekk ci làmmiñu opposition bi ñooñu nga bëgg toogal mais bàyyil ñu jàppee détenu politique loolu acte la ne leen kaay la ñu waxtaan xoolal su boobaa sénégalais yi. ñuy exiger l'opposition ñu dem. ñu bàyyi leen su fekkee ni sax tey jii dañoo nga xamante ni tey jii. waruñu ko def peut-être les détenus politiques laa la wax. bi ngeen détenu politique ñu ngeen tuddee détenu politique. mais ñi nekk détenu politique ñooñu ala kulli defuñu loo xam ne loo grave ndax biñ nee détenu politique rek mooy politique a tax ñu jàpp jamais nag est ce que nag wax dëgg neex bu ñu waxante dëgg est ce que nag souvent neex ñu jàpp la après ñu tuddee da ngaa gis dañ buy def lu ko neex ku ñu bala est ce que kon yoon war na amati ci dëkk bi déedéet dañoo gis ñoo xam délit d'opinion leen leen jàppee leen ay détenu politique na leen bàyyi tey bu tey bu président yee woon bàyyi détenu politique yëpp def benn communiqué moo xam discours moo xam écrit moo xam lu mu mënti doon ne ñii maa ngi leen libéré pour créer cadre idéal pour ñu toog dialogue sama diggante opposition bi l'opposition par force day dem mais posé wu benn di ma woo ba pare boo génnee sa ay di ma ko dem mais l'inverse mën na naam c'est-à-dire opposition dem xamante ni moom mooy seen condition loolu président lañ ñu tey mooy nga loolu bëriwul euh, pourquoi ñoom it ñu dem ba pare bëgg tey jii ñu ñu ñu. xam nga lu tax waxtaan am. xam nga lu tax président dafa bëgg opposition bi wàcc ci seen chaise. raam ñëw toog waxtaan a moom. maanaam mel ni da nga koy sax ñoom it nañ concertation mais est-ce que ñoom bi lépp concertation. mais bañ a bëgg na leen. ñoom guerre bi am. ni fi nekk nii loolu léegi moo arrangé leen parce que ñu ngi ciy subi guerre bi leen parce que ñu ngi ciy subi tey ku mel ni Pastef guerre bi arrangé normal xam nga Ousmane wàcc terrain bi la gën a soxla ko nooy lacrymogène mais wàcc terrain bi day ànd ak souvent ay quelques bâtons sur les roues ak yu mel noonu xam nga ni Sonko entre nooy lacrymogène bi diggante si kër góor gi këram ak wàcc terrain bi bain de foule bi jaga jonjoog nit ñi jaay leen discours am xam nga boobu la gën a soxla. non ci opposition bi nga xamante ni dañoo jàpp ni tey jii boobu la dialogue amul sens vu que ni président di ko dese ci ay ci nguur gi bëri. mais est-ce que quelque donc dialogue bi moom romb na am chance mais quelque fois alpha dem parce que président fu mu nekk nii moom ni mu taxawee moo def naa li nga xamante ni mooy sama wareef day poser day poser cadre idéalu dialogue maanaam dialogue dafa bu koy doo toog rek woote woote yomb na ñoo leen ñu dialogue nii rek waa léegi tey d'accord naa damay wuyu ji fu may wuyu ji kan nan wala bu ñu accepté woon loolu yëpp. léegi moo tax man léegi am na ñu accepté léegi par exemple man tey accepté naa fu muy wuyu. waaw dialogue day am cadre. damaa bëgg tijji dialogue ñu commencé concerté wu à partir du temps ba temps. ci point yii ak yii ñii ak ñii laa woo def naa le premier pas libéré naa diw ak diw wala bàyyi naa lii ak lii ñu xam ni maanaam désamorcé nga posé nga acte ñu fekk si la booy woote dialogue da ngay teg benn pas ne la na ki nga janoon tegal paa ñu daje mais yow tegagoo paa di dawal ñëw ci man du ñëw sedd du ñëw la yëg noo de du ñëw loolu la ñëpp gis à l'unanimité l'opposition leneen duñ dem mais parce que gisuñu ma posé ak duñ dem nii kenn du ci dem jalo d'accord kon dans su fekkee ni xëccanto boobu ñu continue di am président woolee ñu leen neexal opposition ni ñoom tamit duñ dem parce que gisuñu boobu leen pertinence ndax kon dans ce cas là mun nañ fexe ba réew mi bañ a mujj ci ay tension tey jii vu que ni ñu ngi waaye élection yi 2024 Cheikh. dialogue bi daal xam naa ne président ci ëpp intérêt dialogue bi président ci ëpp intérêt. d' accord euh, Cheikh bi. Euh, tuuti nga ko léegi. moom moo war a posé acte yi nga xam dana favoriser euh, dialogue bi. ndax lu ëpp intérêt yaa koy gën a bëgg ci ko yi nga xam ne yaa ko ci ëpp intérêt. d' accord tuuti nga ko léegi nemmeeku tour bi Ousmane Sonko reprendre li nga li nga xamante ni moom moo di nemmeeku tour bi ginnaaw ba ñu tegee loxo ki nga xamante ni moom moo di Fadilou Keita di ko. coordonné euh, Diomaye Faye nga xamante ne également ñu amul solo lañ ci biléb organisation finalement décidé na reprendre li nga xamante ni moom moo di nemmeeku toogu pourquoi selon toi mu décidé reprendre ko ndax dafa gis ni peut euh, tey jii actualité bi ñu ngi commencé di ko fàtte Ousmane Sonko fan yi plus d'actualité mu bëgg euh, reprendre le dessus wala ndax dafa xam ne li ko dese ci ay weer bëri tout. Ousmane Sonko moom li mu def c'est tout à fait normal et la politique Euh, il a beaucoup plus à gagner ci wàcc ci terrain bi que ci terrain lacrymogène bu sañoon waxtu bu ne ci lii lay ne politique bu ne boo sañoon am lii ma benn ful dem nit ñi acclamé la nit ñi addu bele ni ñi génn wone seen sympathie di message dissuasion la envers la camp adverse te yaa ngi tamit euh, baliser le terrain pour élection deux mille vingt quatre donc c'est tout à fait normal beneen bi message la bu muy envoyé à mooy réalité politique la hmm. boo xam ne tey message am ak discours am jàll na ci askanu Sénégal début bi dañ na woon ndaw ñi rek ko gëm léegi mag ñi góor kum jigéen ñi ngi ci donc loolu dafa am lu muy wane donc c'est tout à fait normal léegi nag yow mi janoog moom yow yaay def appréciation ne kii kat mel nii kii kat toll fii mag ñeeg góor ñeeg xale yeeg jigéen est-ce que aaye dem ci ay élection réew stable nekk ci jàmm loolu dana yomb. mais xam nga dañu woon depuis verdict bi nga xamante ni rendu nañ ko ñaar procès pour diffamation bi dox ci diggante mag Mame Mbaye Niang dafa juste. fexe bi nga xamante ne tey jii ñun ñaa ngi coowal Idy coowal Idy coowal Idy te Idy annoncé ni moom il est le chef de l'opposition ah, mais sax Sonko tontu ko tontu na ko ah, euh, nee na tey jii je le chef de l'opposition ou pas loolee euh, bi bi dinañ ci xam hmm, loolu tontu na ko leer de moom xam nga li mu def rek démb rek wan na rek tontu na ci la chef de lam benn ful na tontu la c'est de la politique moom coûte comme la quoi dafa dajale li Idy communiqué li li camp présidentiel communiqué yëpp na ko réel ci benn. waaw moo tax ma ne est-ce que kon finalement mën nañu jàpp ne peut-être tey jii Idi ak ni moo dogalaat li nga xamante ni moom mooy nemmeeku turam. Ah, mun nga bokk bokk na ci parce que Idi da doon distraire en fait. duggul génn wax ba leerul nit ñi defaat focus ñun ci lii lañ ne mi ngi ci ay combine bërëm ñun ñu ngi suñu focus suñu programme loolu c'est une façon aussi de tontu médiation idi dugg na génn na président ko yónni yónniwu ko xëdd si na fajar xëdd siwul Sonko tekkam gi dafa am lu ko waral pa war na leen ne leen man maa ngi ca la ma ne woon eh focus leen. Sonko tekkam tekkalaan boobu Cheikh bi lan ko waral. ak koor bu métti xam nga xiif gee ko sonaloon tamit benn beneen bi communication la xam nga du waxtu mu nekk nga war a wax dañuy wax ni silence wax la. wala dafa bëgg wax ju bëri bon je pense pas silence rek Ousmane Sonko saa yi waree wax dana wax plainte xaaram wax la plainte ou pas diffamation ou pas saa yi jàppeen war na wax dana wax démb rek waxaat na loo xam ne euh, keneen ko ko wax ñu poursuivre li Bassirou Diomaye bindoon texte démb wax na ko ouvertement publiquement Sonko xala gis nga silence yaa ngi nangu ni nag réew mi réew mi wax léegi démb na lu nga xam yow boo ko waxee doo fanaan sa kër mais loolu mais looloo waneen réew du démocratie ah wax la xaaram wax lu tax du démocratie ngeen réew mi amul démocratie waaw Ousmane Sonko bu wax lu ko neex duñ jàpp man moo ko jàpp loolu démocratie lii moo waneen réew mi du démocratie kumba am ndey kumba amul ndey la Sonko lu mu a wax duñ ko jàpp rek man war mun a am sañ-sañu wax ko te duñ ma jàpp. déedéet xaar xaar xaar non non déedéet waxee wuñ noonu de déedéet waxee wuñ noonu de am na ab immunité boo xam ne lu ko neex wax lu ko neex def loolu waxoon naa fii ëpp na ay mois ci ginnaaw bu nekkoon démocratie bi ko Sonko waxee dañ koy jàpp comme ni ñu jàppee Basirou Diomaye mais la fait que jàppuñ ko te jàpp Basirou. mooy wane ne réew mi ku ma am ndey ku ma am ndey yéenay wax lii tey yéenay wax lii suba déedéet man waxuma loolu man xam nga lu may wax képp ku wax loo warut a wax ñu jàppale opposition comme pouvoir képp ku wax luñ luñ la warut a wax buñ la jàpp opposition comme pouvoir bi fi ñu daanelee nag moo di euh, l'affaire Sitor Ndour Sitor nag bàyyi nañ ko euh, ñu bëri nag nee na ñu lu tax Sitor ñu bàyyi ko te te pourtant dañ ko accusé pour viol euh, certificat médical bi daal di koy attesté ak yu ni mel Euh, yow jàpp nga ni tey jii tamit lu ni mel c'est purement politique donte nag ci daw moom nee na bu fekkoon am na maqam Sonko am da lu muy gis amañ koy jàpp c'est une façon c'est une façon c'est euh, yi ci moom rek maa image am wala tolluwaayam moo tax ñu génn ko foofu euh, mais bon nu mu tudd affaire Sitor bi ñun ñëpp ñoo ko gisandoo xale bu am na na certificat médical am mu attesté li mu attesté yan fee la ñu ba génn ko doo xam cest à doo comprendre en fait y eu moins que cela renvoyé nañ Ousmane Sonko devant nu mu tudd devant chambre criminelle preuve yi feeñ ci si léegi nag yii boo ko dajalee day jox raison kii wax ne tëddeewul ñaaxaanaay justice tëddeewul ñaaxaanaay. donc sax ci loolu sax ñi nga xam ni euh, chambre d'appel euh, dafa euh, débouté li nga xamante ni moo di pourvoi en cassation bi donc dans ce cas la chambre criminelle mooy décidé ani kañ la ñuy fixé procès bi dox digganteem ak Adji Sarr. xam nga Sitor fu mu dem chambre criminelle Sonko fu Ousmane Sonko dem chambre criminelle Sitor maison criminelle la war a dem kii amul benn preuve bu attesté kii ñaata élément nga am yooyu attesté kii nga yóbbu chambre criminelle kii nga libéré doo comprendre. waaye kay tamit accusé nañ ko pour viol te depuis léegi loolu tamit waaw léegi loolu tamit da lay wanaat tamit ne dëkk bi amul justice te deew njaaxanaay bu doon keneen la mi ngi ci ginnaaw kaso yi pourquoi Sonko amul légitimité boobu. lii mooy débat bi. c'est-à-dire juste bi tëggul ñu tëddeewul ñaaxaan nañ foofu est-ce que du tey jii nekk ñoo ko waroon kaas. déedéet bu ñu gisee tey ñoom toog si ñoom accusé nañ ko ko ràpp. ñaar yëpp moom Sonko moom muy kii ñu ngi nañ ko. mais nañ ko rek. Ah, dafa laaj tëj ko pare génnewaat. waaw ah, ko accusé ba ko mu dem mais pourquoi. lii mooy laaj bi pourquoi ñu may pourquoi bu mu tudd. est-ce que loolu justice à débuter dans ce cas la penché wu tëddeewu non. bul ne ci kii la penché wu nil tëddeewul njaaxaanaay parce que dana may kii lu mu ko waruta may dana xañtale lu mu ko waruta xañ justement moom laa wax ne la ñàkk tëddee njaaxaanaay ci kan la ci ñaar ñëpp finalement mais ci ñaar ñëpp mais bëri par exemple tey nit yoo xam ne tey mi ngi leen aaye loo xam ne mi ko may ay nit yu nekk camp du pouvoir d'accord cam fi ñu daanalee waxtu bi xoj nañu par rapport ak groupe Topka ah groupe Topka laa man aw may kaa aw ma kaa am information nga ci réew mi ci dara maa ngi ñaanal daal si nekk ci jafe-jafe yàlla génne la ci jafe-jafe bi amin amin comme ku mel ne par exemple Coro Mandela munoo bañ a apporter Coro suñu ci moom jëkkëram maxu ju nekk en état toll ci juróom ñaari weer parce que am na yeneen anam li ñu mën a teg loxo ci moom moo xam contrôle judiciaire moo xam bracelet plutôt que mandat de dépôt loolu daal danaa ci apporter suñu soutien maintenant li nekk ci groupe beeg moo def deful loolu dëgg yàlla bëriwuñ ci xam. bu ko gisal alors chef foofu la ñuy a été un plaisir ah, di leen gërëm rek wax ci ne ci ni ngeen di facilité ñu mën di jàllale suñuy message euh, en toute liberté. wax suñu xalaat niñ ko jàppee ak niñ ko gisee loolu dafa am solo ndax du ñëpp ñoo am ñoo am ñoo am ñoo ñëpp lañ yombal loolu en fait du ñëpp ñoo am cadre boo xam tey nañ fo toog wax li ñu gisee ak niñ jàppee en toute liberté di ñaanal yàlla kër gi fi mu bëgg a àgg yàlla àggale ko fa projet yi ngeen am yàlla na ko yàlla sottil ba sottil sax lu romb set jot di la encourager di la yoo xam ne jotaguma nekk sama ndewénal jërëjëf sama xarit nga. waaw loolu du day ñëw ak doole. loolu du dëgg donc euh, chef di la remercier di remercier la régie ci liggéey bi Ismaïla Massamba la rédaction de Sénégal également di leen jox di dégg ci yeneen plateau 13 minutes vérité jërë ngeen. c'est